di ko xam ne li ko ñor mooy dundal aar li ko ñor mooy fexe ba la musique pulaar récupérer place bi nga xamante ne que yàgg na ko am sur la scène musicale sénégalaise rawatina sur la scène mondiale di xale boo am histoire boo xam ne dafa rampe dama wax ni kenn mayu ko loxo ah ci ñi ko xam yàgg ko suivre xam ko kenn mayu ko loxo dafa rampe rampe ba yëg si tey fi ay moromam yegg muy le grand chanteur le grand chanteur Haalpulaar

sénégalais xam nañ loolu bu la ñaan yàlla defal jàmm aussi nuyu ñuy seetaan ñëpp ak sama mbokk pulaar yi kala biyo mbii mi wii mi wii maa mi mi salmi nii ma kala tongondaay adduna mhm. diggante Demba ak musique waaw sama xarit la mhm. sama xarit la xam nga musique moom euh, bu la bëggee nga bëgg ko seen ànd dafay neex mhm. te it yàlla dogal na bu ma nee suma xarit la que mooy biñ may xam au début euh, ci musique laa njëkkee Eh, di ci def ay concours yalla di dimbali may nek meilleur chanteur sa concours ma bok <coughs> excusez moi motax tax suma xarit la tay ji yalla def aussi ma bokone ci ay euh, euh, programme yo xamanteni du won sax ci dekk di dekk fi ñu nek ni ni nii mm-hmm. musique moom ma yóbbu mm-hmm. donc mo taxone manan kon sama xarit la loolooy sama diggante ak mm-hmm. musique Demba ak Oscar des vacances démb meun ñu wax ni découverte biñ ko bi senegal yu bari yi ko defee moy Oscar de vacances dem nek nekk xale bu tuuti. waaw gàddu guitar gi. waaw c'est vrai Oscar de vacances mo ci profiter di nuyu son papa Aziz Samba. Mhm. mu kon initiateur bi. Mhm. donc euh, Oscar de vacances nek nak jaar-jaar bu extraordinaire si mhm. parce que jogé naa fa. Euh, euh, ki Oscar bi bo mu ma parce que bokku na ci concours yi moom mujj sax gagner ci Oscar de vacances bi ah. parce que gagner na fi ay triplex L père Guissé Pène dina ma seede loolu mm-hmm. ñoom Ousmane Faye ñoom Paasan ñoo nekkoon jury mm-hmm. euh donc euh, euh, euh, ma nekkoon foofu meilleur chanteur ci catégorie ma nekkoon triple L ma jógee fa dem Kasanga nekk meilleur chanteur ma jógee fa dem xeex sibir bu gis nul organisé nek nekk meilleur chanteur mm-hmm. jóge fi encore Kasanga bu Sénégal mu nek meilleur chanteur ma jóge fi dem Kasanga bu Mali jël deuxième ci final bi donc tey su ma su ma su ma su ma su ma goree tey sax dama naan euh, euh, euh, dama war a damaa war a dama war a teral musique mm-hmm. parce que xëy na melaguma comme Youssou Ndour wala Baaba Maal mm-hmm. mais sant naa ci yàlla ba tey lépp loo xamante ni am naa ko mu bëri mu néew mm-hmm. musique moom ma ko may donc nak Oscar de vacances bi nga wax sank rek bokku na ci li tax Sénégal yépp xam gën la xam mhm. donc euh, waye amna yenn concours yo xamanteni mhm. aussi vraiment Kasanga euh, euh, concours lool bo xamanteni mhm. beaucoup de pays ci Afrique bi. ñoo ko demoon def yi muy Kasanga 3 ma ci gërëm aussi ñom Ander Baba Jara ak Papa Wan. Ah, euh euh bi nga xamanteni ñom ñoo organiser lool loolu. donc and ci télé bu mag muy Africable.

loolu moo ko yóbbu États-Unis muy produire foofu aussi mais tey bi mu fa demee rek même bi fi nekkee ah Pendo mu ci woon Pendo mi moo ma jiitu ci aar bi. ci aar effectivement mm. man aussi maa ngi ci ak sama beneen rakk encore ji bi. donc mm-hmm. quelque chose boo xamante ne si biir famille bi la quoi. Mm-hmm. mais maa koy wax keroog maa koy soog wax tey sax peut être nekk si émission que sama yaay du woon woykat mais bari na ci lu woy yoo xam ne dama ko doon dégg sama yaay mu nekkee xa man man man bu nekkee xale. mu di ko wayantoo. ok woy bu woy euh, euh, euh, doon ko woy sama rakk bi mu nekkee liir di nàmp. Mhm. maa ngi dégg sama yaay di woy benn woy ko naa la yàlla ak seex gis sa barke baay. ah loolu ne woon naa la léppay baax je pense parce que pas de parole li quoi. Mm, mm, mm. te boobu xale nga. boobu xale laa li may wax ni 87 la ah. 87 donc bon bon Kara 87 la judd. peut boobu euh, bu nekkee liir la peut-être mu nekk 87 wala 88. mais année boobu la. man sama xel may may bàyyi xel sama pap euh, sama yaay di woyal loolu ka ma wax kat sama yaay sama yaay mais effectivement. boobu boobu yàgg na. donc sama aussi si ay si si waxtanam ak ñun muy wax ni mom jaar na ci jaar na ci balé donc tay bi ay doom ñëwé nek ci art bi du ko mm. bett. Mm, def ko équation. non non non non. Mm, par rapport ak famille pulaar yu ah, bari. famille pulaar waaw sama papa bu ñëk <coughs> peut ko wax keroog si benn émission sama papa sama papa bëggul won art bi. bëggul won doom yi di way sama papa dafa bëggoon. sama papa comme da doon liggéey ki aéroport sama papa xam nga dafa xaw a bëri <laughs> waaw dafa non da ngeen wara tok ngi leen di way. ok ak yooyu moom loolu la nekk affaire am xam nga. Euh. mais après ndeysaan bi muy gisee nag gis ni que affaire bi c' est quelque chose boo xamante ne c' mm. dañuy poussé ma. Mm. est ce que du dem ba lim ci dugg nekk lu suñ mel maanaam dugg ci aar ba fi mu teg si dem musul toox musul naan musul def yenn nii est ce que du na loolu yokk na ci li gën a tax nga déggoog say bopp. xam nga aar. Euh, du aar rek da koy def da war a tuxoo la nga naan. waaw mais maa ngi xam bu njëkk. gis-gis boobu la amoon. ci ci musique dëgg mel noonu. Hmm. vrai gis nga hmm. euh, euh, tey sam papa mën naa ni bari na ci lu may woy am pulaar sam papa dama koy laaj mu wax ma. mun ma hmm. ñëwal ma waxal la lii ak lii ak lii ak lii sam papa ci comprend tey xëy na bi mu gisee ni Samba gisee nekk ci ba réussir ci. di doxal lu bari xam la même chose man ma ci donc du encore et toxuma suis doxuma dara ci donc mm. suis euh, sama papa sama mère au au contraire de me pousser poussé euh, euh, ma encouragé parce que mm. xam nañ que bon man en 2010 11 Euh, ñi fa nekkoon ci concours bi amoon na ay góor ay jigéen mais góor ñi ñu ñi ma bokkaloon chambre ñett lañu waaw ah, keneen ki ah, keneen ki du woon jullit ah, keneen ki juif la keneen ki euh, ñaar ñi ay juif lañu keneen ki kii la quoi beneen laaka parce que bëgguma dugg si ethnie quoi mm-hmm, mm-hmm. ok mais bi ñu toogee ba toog si biir euh, ki affaire bi su guddi jotee waa ji day jël ay bible am dafay affaire am xam nga mm. kii ñëw dafay affaire am xam nga kii bàyyi ba guddi mu indi ay affaire xam nga genre xërando c'est pas xaw ma xam mm. mm. man nag comme man bon damay wax ni que yàlla moom mooy buur ak yooyu dañuy ñëw bu guddi jotee nag da ngay dégg kii di wax ay affaire am kii def ay jatam kii def ay affaire am <laughs> man man satara laa yóbbu woon daal asafar laa asajaade laa ak sama kurus xam nga ñu defee affaire man mu jëlee pare def samay naafile xam nga tëdd xam nga xaar suba jot yaa ngi dégg ak li yàlla def bi ñu demee ba ndam li kii am na koo xamante ni genre këll la yoroon. Hmm. këll xam naa nag bon xam naa ne doon def affaire de kii yooyu quoi. mystique quoi hmm. la yor quoi xam nga téye ko nii di wax naan leen est xam ngeen ni fii su ma gañewul kas sànga bi yéen yéen ñii ñëpp su ma ko gañewul ah yéen ñëpp maanaam daal def bakkan la ci teg. ok mu ne moom affaire baa ngi nii mu yor nii mu ne affaire baa ngi ndam laa ngi nii ci moom comme man nag bon ay sénégalais te xam sénégalais moom xam nga moom. naan yooyu ok xam nga. Mm. xam nga def ay affaire xam nga yàlla dogal kooku dama ko éliminer. éliminer keneen ki éliminer keneen ki demoon na ba case bi man kese maa fa desoon. Mm. en tant que musulman. ñëw mm. ma musulman moo gën ñëpp waaye dama ne maa fa desoon te gën gëmoon naa la ma gën chaque vendredi dañ doon dem euh, guddi gi pour comme ah, ah comme suba compétition amul suba dañ doon dem euh, benn boîte bi ñu wax ibisa club Mali. dañuy bu ñu demee nag. comme gars ay aussi buñ naanee am problème ñoom ñi nga xamante ni nekk ñu woon ay ay jullit comme man. Mm. xam am jigéen aussi ñuy jóge ay ay yeneen dëkk yi yeneen dëkk quoi. Mm. ay Niger ak yooyu xam nga ay Côte d'Ivoire. ñii dañu def seen affaire naan seen bagage et tout ça man ma ñëwee rek man jablo mante lay laaj. jablo mooy jus kii kii kii. Mm. mante bi xam nga ma laaj meew. xam nga def ba mu kii man naan xam nga boobu temps Fallou Dieng mu génnee maanaa. maanaam hmm. xam nga maa fay nekk maa yor ambiance bi maay fecc te tëxuma naanuma yaa ngi dégg eh. ba ñibbi si desaan benn jour may fàttali ko euh, gaa ñoo mandi ba safari bi dafa mandi allahu akbar barke salatul fatiha naan man rek ma nekk fa rek may animé may way may fecc dafa efe xam nga te wax dëgg yàlla bu fecc jotee ma fecc bu naan euh, jotee ñuy naan seeni naan ma naan sama euh, meew mhm. ah, euh, def si jablo mante bi xam nga ba mu saf mante man naan ko xam nga bu di ñibbee jot bu woy dee jot nag ma woy ba kontaan mhm. démb teel samp kër te boobu succès bi amagul man je me rappelle am na fu ma nekkoon bi muy koy jël émission boobu je crois que c'est en 2014. boo fekkee ne Demba yor kër. waaw xam nga xam nga euh, euh, euh, dama nekk xale ñu naan dama xaw a mais dooj bi yëpp mooy que des fois boo bëggee boo boo amee loo bëgg problème man takk naa jabar depuis année yooyu. xam nga am naa ñaari doom. baba nekk booy bu ndaw quoi man jamono boobu. xam nga géré nekk sama kër papa. yàlla moom ngi may dimbali ba maa ngi ci yeneen i bagages et tout ça. yaa kër ga ba tey. waaw mais dafa am dafa am xam nga du lépp ngay expliqué. mais quand même yàlla yàlla dolli sutura xam nga mais quand même yàlla dafa def ni que. ñun buñu buñu ñun ñun suñu suñu famille buñu amé jabar d'abord mm. da jaar kër gu mag ba pare. Mm, man yow na fu ok ok l'ambiance familiale. ok mm. après nak bon xoyna après buñu defati ben émission. dinañ defaat yeneen affaire yoo xamante ni xam nga xëy na <laughs> dina la jaaxal. mais mëna la bañ jaaxal. parce que diggante Demba Guissé ak musique poulard pulaar. Mm-hmm. Demba Guissé Demba certes dina way ci mbalax kontaan mais quand Demba s' exprime en pulaar. Mm-hmm. Eh, da ngay lire ci karamu Demba ben ben fierté musicale. waa xam nga euh, bokk ci gétt gi naan ci meew mi mhm. man doomu alpulaar la mhm. eh, ma fier si chaque jour dama koy faral di wax e mun naa ne man sañ naa ne li may woy ci pulaar sax moo gën a neex li may woy ci wolof waa ah, parce que pulaar ngay gën a yëg yow ok man pulaar dama ci nekk à du ma nekk wolof nekk ma ci àll am hmm. parce que damay woy wolof damay bind ay woy xam ma bi ñu may njëkk a gis may woy it wolof laa bind woy ko muy ay jàmm def ma ne sa doom gars yi apprécier ko hmm. mais man damay nekk à suma su ma woy en pulaar xam hmm. te parce que nag vraiment euh, Ah, affaire la boo xam ne man dafa nekk ci man. xam nga mm. tout le temps. ko gëm quoi. ok dama ko gëm dama ko gëm. Mm, mm. dèjà am am am am ku ma pour est que nekkul en pulaar bi parce que des fois dañuy gis des fois yenn snap yenn affaire yi et tout ça dañuy gis trop sama yenn morceaux yi pour ñu ne pourquoi pas euh, est que nekkul en pulaar bi moo tax ma ne man ne man ne ma ne ma dérangé wu ma.

mu fi demee pulaar pour ma nekk ma si nekk ah pour ma nekk à à l'aise du problème. donc mhm. loolu tey moo tax tey que pulaar bi fu ma ko mën a yóbbu damay bokk. damay jóge fii ni nii sama tournée yi ngay dégg naan ay kii yëpp ne mhm. quatre-vingt-dix pour cent pulaar yi la. pulaar yi la sa diggante ak Baba Beye Dimal. yee foofu papa ak doom la. Mhm. Baba suma papa la suma xarit la. Euh, donc Baaba Baaba Maal je suis le fils de Baaba Maal. Baaba bi ngeen koy tuddé doom bobu yéen relation yu faatu na. bon man ba ko tuddee doom bi loolu relation mag mom bobu muy muy muy bëgg yag yàgg Baaba bu Mali en 2000. Hmm. en 2010 en 2011 lañu commencé def nii. sen découverte yéen nan la exact. bon may euh, wax ni depuis mo dem Mali di. Babani Koné yaa ngi koy dégg wala xam nga ko Babani Koné. Babani Koné milliardaire. Babani Koné bi ma demee bi ma demee bi ma demee Mali Babani Koné euh, man euh, Baba maa la ma doon woowee. Mhm. parce que man dama doon bi ma jógee Kaasanga ba pare ñu bisiwaat fi Sénégal dañ ma waat encore benn festival bu mag bu tudd les voix de Bamako. Mhm. dem ba gisee nekk si biir euh, ñu daggal ko billet def ay affaires et tout ma dem répété ak le musiciens. dem tëggi fi benn festival bu mag boo xamante ni boobu y'avait les Babadook Koné ak ñoom Oumou Sankara ak yu mel noonu noonu ma bokk ci en tant que sénégalais nekk si biir programme bi tëgg fa orchestre en live. et ma jógee waat fa Babadook Koné invité ma këram ma dem mu may woowee Baba Maal la ma doon woowee eh, te mosuma gis Baba Maal boobu boobu année 2010 ma koy gis Podor laa ko fekk waaw ma dem fa ñu invité fa benn programme mu war ko tëj. benn programme bu mag bu amoon fii ñoom may may nuyu ñoom à ah, Basirou Mal foofu Podor mm-hmm. affaire bu mag man maa dem tëj ko. Mm-hmm. demee nag le même jour nag laa gisante ak Baaba Maal. Mm-hmm. mu ma maa ngi lay suivre maa ngi lay dégg partout mu ne ma waaye maa ngi yow tey la yàlla def ñu gisante. waaye sa papa sama wóllare depuis bu yàgg. wax ma nag relation ak sam papa bi sam papa sam papa boo seetloo euh, am na émission bu Baaba Maal doon def fan yii de di wax jaar-jaaram ak sama papa ak moom ak ñoom Mbass Niang. ñoom mhm. Mbass waxuma lu bare bare bare bare bare. donc mu ne tey tey su ma ñëwee tey mel noonu ci moom du ko bett parce que moom papa noonu la woon d' abord. xam nga sama liggéey. mais dafa mel ni yow fierté nga ci moom. waaw ba boo koy déglu buy wax ci Demba Guissé dafa gëm ni que relève am nga yow benn moom gëm na loolu. te en même temps daf man il s' exprime avec fierté en parlant Demba Guissé. waaw baaba daf ma koy faral di wax baaba dañu waxtaan lu weesu musique ah. ñu mhm. waxtaan mbir mi ñu waxtaan mu xelaat ñu ne dafa mën a question bu bëggoon laaj yow gi Youssou Ndour hors peine yooyu kan moo mag ñu reetaan quoi ni ma ni ma maa leen mag ñun ñëpp. maa leen mag effectivement. waaw <laughs> man loolu moom man da ngay entraîné ma ne ma non non gis naa entraîné kenn xamul ma la ñuy waxtaan ci yeneen bagage quoi. yu bokkul mhm. sax ak musique pour pour wax la rek que ne suma xarit la. Mhm. des fois damay damay am des fois euh, amoon na ay temps. Euh, des fois nga dem concert Baaba Maal des fois nga am euh, am benn concert Baaba ma demoon amoon lu ma naqari woon ci biir si si biir si si programme ba. ma gedd ñibbi waaw ma xëy Baaba woo ma tax nga ñibbi ma ne ko lii ak lii ak lii moo tax ma ñibbi xam nga il compris. Mm-hmm. te damay am des fois ay affaire bu ma bu ma naqari ci benn affaire ah mu wóor ma ni Baaba Maal yëgul ñu waxtaan ci mu ne ma lu taxoon nga defoon ma ne ko lii ak lii ak lii la sama papa la sama xarit la. diggante eh, démb gis ak baamaal diggante papa ak doom la ay nekkul ay ay hmm. <laughs> alors <laughs> asalaamaaleykum non non non non. Hmm. alors waa père ci loo nekk temps nag danga ma bàyyi quoi mënu ma xoolal pourtant démb rek laay waxtaanee donc c' est quelque chose boo xam man ak moom. noonu rusuma ko parce que sama xarit la sama papa la. Hmm. dégg nga euh, keroog émission mu ngi naan la. Euh, su ma euh, su ma waxee papa ma ne laa la war a wax parce que dama tudd doom ma ne ko effectivement kon kon man sa doom la aussi sa papa la man sa doom la aussi sa papa la beneen relation bu jaaxal Sénégal dama ñu bokkal bari na macha allah mhm. euh, mais diggante Demba ak Pindu dafa am benn complicité bu bu bu doy waar fekkew ma nag xëy na seen jeunesse mais ragal naa ne Pindoo xeexloo nga ko bataay wala yow mu xeexloo nga bataay Pindoo hmm. Pindoo Pindoo xam nga euh, bu njëkkoon nag bu njëkkoon bi ñu gën a nekk xale ji ba wuñu woon bu ñu gën a nekk xale. am na loolu affaire oui maa ngi moom dañ doon xeex rek. tout le temps xanaa ay tofoon ngeen. waaw moo topp ci moom. Ah. xam nga waaye ma yëg ne non des fois rek ma mag ko des fois mu mag ma. maa ngi moom noonu la ñu mag a <laughs> des fois xam nga. Hmm. <laughs> mais quand même sama xarit la quoi. Hmm. Euh, la la la la la preuve que moom bu ma nit laalee. si hmm. moom si kawam ngay dal balaa nga ek si man. en plus que Euh, neen daf ma yërëm quoi parce que peut-être ni que des fois ma am yu bari peut-être yu may xaw a naqari wala mm. des fois yu may xaw xama damay cool moom day bëgg di di di di di di ko di ko di ko di ko di ko di ko wax ou di ko di di ko lijjanti mm. xam nit nag bu ngeen bokkee ndey ak baay nga topp ci moom ngeen am boobu complicité aussi c'est pas évident soo amee naqar noo koy dundee ak moom parce que am na fi jamono elle trop triste am fii ay mbir jaaroon ci kawam coow lu bari loolu euh, connaissez la femme tu tuuti da nga doon gis ni que jigéen bu doon dund lu ko lu ko mettre ci xolam dem moment yooyu nak la ko partager non dama doon waxtaan ak moom tuuti ñu nekk ñu nekk ci top loolu mu jàll mais nekuma ci di wax ak yoy parce que nit bu ngeen bokkee nday ak bàyyi lu ko laal dalay laal lu ko wax dalay la mm-hmm. paré dafaa gis nit ku bindal ko dara dalay metti mm-hmm. waaye boo bëggee lu la métti rek nga taxaw bëgg cee wax dangay yokk xar mi karaw mm-hmm. da bàyyi des fois euh, silence parce que moo gën a nekk arme ci mm-hmm. doomu aadama quoi. mais da waaw mm-hmm. moom da ngeen bokk naqar quoi. waaw ah mais su ma dara méttee daf koy métti su ko dara méttee daf may métti. mais da bëggul ko ko wax dégg naa lii ci yow bëggul ko wax loolu. waaw parce que dafa dafa dafa dafa dafa dafay gaaw a ki stressé ñu bëri dañ jàpp ni que dafa tàng mhm. dafa bëri histoire dafa dooj dafa pànk non non yàlla xam na ko dafa nekk nit bu nit bu nit bu def nii mhm. ama te yenn euh, yenn yenn nit ñi ci sénégalais yi yenn ñi bëgguñu nit ku def nii mhm. dégg boo ñemee dëgg ñu ne da bëri histoire boo ñemee dëgg ñu la da ngaa da ngaa da tàng dégg dañuy bëgg kuy kuy kuy ëf di matt xam nga te moom melul noonu. melul sa waay la sa sama waay la sama waay la sama waay la sama waay la. sama waay la sama mag la ñooy séddoo ay mam pen. wax na dañu ay tofu lañ c'est vrai. Euh, Pendo dafay défendre Demba bekk bekk sa ongle. dañoo wax Demba sax moo gën a <laughs> Demba mooy gën di euh, Demba relation ak artistes bu mm-hmm. euh, xëy peut-être am ngeen kii nii rek quoi. Demba kan la ci amoon relation bu relation ci ah, personnel boy euh, personnelle relation personnelle. ah mais mais euh, comment ah, da ah, ko wala xamanté wu wala xarit personnel dafa personnel je pense que si je comprends bien personnel affaire yu. dem di de mom

xam nga léegi aar bi dafa doy waar grand yow xam nga yoo xam mu mm-hmm. demee mm-hmm. des fois euh, toog sa sa kër di liggéey da ëpp solo daal xam nga mm-hmm. xam nga dem lente beeg naan doo ataay bi léegi xam nga waaw léegi yow yow bu njëkkoon xëy na da nga daan jël da nga daan tibb dara yóbbul di ndaanaan seeti ndaanaan ndaanaan tëral ndaanaan hmm. waaw léegi loolu amatul léegi ndaanaan léegi bu njëkkoon nu ko nu ko ñoom njagame doon waxee ndaanaan bu yàggul sa frère Waly la teranga c'est une première waaw mooy bi njëkk sa diggante ak moom ci teranga boo sàkkul

une fois c'est un geste boo xamante ni dafa rafet makoy makoy saluer parce que nak euh, bon du dara mais geste bu rafet la quoi. da nga toog rek mu li la xar ok dama tok si ben place reru kay ben woo ma ne ma allo Demba Guissé ça va bien man la Baba. waaw ah, maa ngi jàpp turam parce que papa Baba lañ koy wax motax Baba maa aussi motax ma jàpp turu waji mm. Baba euh, Wally Seck moo ma mu ne ko ah boo mën a ah, ah, foofu mu indi xar bi après ñu jiit le quoi. Hmm. loolu sama toog la ko jox après après woo nga ko mais remercier ma sa waay mu ne ma ne xaaral paas ko paas ma ko rek ñu waxtaan benn benn deux secondes mu ne ko mais geste bi rafet ma yow. bàyyi fan nga ma ne ensemble jaajëf te. naa si jàngat euh, la scène musicale certains disent que Wally Seck le chanteur du peuple. nag maa bëgg a piéger. non damay laaj rek dem est-ce que loolu artistiquement d'accord na ci wala nan la ko. gis nga foo xamante ni xam nga ay artistes du peuple ak yooyu. Hmm. je suis mal placé di ko hmm. jiiñ kenn wala di ko hmm. teggil kenn. Wally Seck yàggu fi lool. waaye def na preuve nag bu fekkee dëgg rek neex def na. ay jaloore quoi vraiment ci xalé dama koy encourager diko ñaanal yalla nag parce que nak euh, limu limu limu mu li mu fi mu jógee ni mu débuté ak fi mu dal parce que walé boo xolé 2009 le débuté. Mm. man man débuté na avant loolu dégg mm. ndax dëgg yalla yalla defal na ko xéewal 2009 10 11 ba tay vraiment mu mu mu nek ci ci ci position bo xamanteni vraiment euh kenn du natable liggéeyam. Mm. donc loolu la bu ma mën nak ci centre de. pour liggéey xam nga xam nga tey. Euh, de, de, de, de Pape Diouf, par exemple. Pape Diouf, il est, il est nommé l'ambassadeur de la musique de la musique africaine. Pape Diouf, génération mi majeure partie bi sax majeure partie bi ah, hmm. hmm. vraiment maintenir. donc moom aussi ku ko xool xam ne yaa woyli la Pape Diouf Pape Diouf leneen la quoi mm-hmm. artiste bu artiste bu yàlla may la ok mm-hmm. artiste bu yàlla macha allah artiste may la te te te lu ko nit mën a waxal ci at nangul ko mën a way non waykat la loolu loolu moom loolu loolu loolu moom bitti la faral c'est <laughs> moo tax des fois du ma bëgg a dugg trop ci polémique yooyu. Mm, ay Pape Diouf ay Waly ay mm. ay ay ay Baba ay Youssou ay Nder non non non man je suis mm. boo xamante ni ñëpp samay xarit la ñu. Waly Seck gëree la. def na jaloore kenn du ko werante barki salaatul fatiha. clip Papa Diouf. extraordinaire. Youssou Ndour sunu papa la Baaba Maal sunu papa la ak fi réew mi toll nii Sénégal jëm kanam. <laughs> fi réew mi toll Sénégal jëm kanam xam naa l'émission tire à sa fin ma ñëw sama laaj mu mujj démb clip je bi.

su doon maa def exprès génnee photo bi sañ naa ko def nga wax ma bu waaye dem ba gisee photo bi man la maa tey xam nga doo ma dóor dem ba gisee photo yi man la waaw maa ko tey maa ko tey defoon ko doo ma dóor doo ma saaga dégg waaye du woon ma maa ko def fan yi dafa fuité bon Boston Boston la suñu xarit la Boston la suñu xarit boo gisee <laughs> ah, ah, ah Boston du Boston du Boston de xamul Pape ji Boston de ah. mm. Boston suñu benn xarit la mm. moo fi <laughs> moo génne les dégg dafa mën a def sorti ma ne ko jaru ko parce que coow li dafa dem ba après daf ma dépassé. dafa dépassé xam mais après comme clip bi génn nañu gis ni ah clip la ñu ne ah ok d'accord. non mais xam nga dem ba kenn mësu ko xam ci yooyu moo tax mu bett. ñu bari waaw mais xam nga artiste la te artist aussi. Euh, amuloo limite en tant que artiste. Mm, mm. parce que tey boo seetloo sama pap Souleymane Faye di ko ñaanal yàlla gën a guddal fanam. parce que moom. Euh, Euh, li ko nit wax wax wax nañ nangu ne artiste mm. bu bu bu fees dell. bu fees dell la mm-hmm. euh, def na fi ni ko mbëri di defee. Mm-hmm. njëmb. yaa ngi dégg def na fi clip sol robe bu turfet. Papa Souleymane Faye yaa ngi dégg. Mm-hmm. def na clip sol robe. Eh. dégg et pourtant critique boobu yëpp nekku ci. parce que dañ ko xool dañu am vision xool ne que kii dafa dafa dafa fi kii dafa fees. ok ok d' accord ok te am na ñoo xamante ne lu ñu def ci gàmm yooyu rek dañ leen koy nangul. dégg man nag egguma sax niveau boobu. Mhm. dégg mais quand dama def ni ni ni euh, ni jeune di defee clip. defee ko mhm. parce que bee passé defoon naa clip trois pièces. Mhm. woo ci taara def naa clip wooy si leneen ak leneen donc tey nag clip bi concept bi lii la. ma clip bu méngoog jamono bi ok ma ànd moom Sénégal jëm kanam. mais sa jabar créé lu la ci. bon bi ñu ko déggee dafa am. lu mu gisee photo yi quoi am ci am bon avant ko gis laa ko njëkk a woo. astafurlah la maa ngi expliqué non sama yaay laa woo ki avant ma koy gis quoi. Mm. mais sama jabar daf ko gis après moom ma téléphone ne ma gis naa benn ay affaire yu nekk si internet bi de mais foo nekk ma ko maa ngi ñëw mu ne ma ok kon ñëwal ñu waxtaan si ñu ngi xool. ma mm. ñu waxtaan ñu waxtaan si loolu. ma expliqué ko mais li ah, xam na sama jikko. am na sama jikko ah yow man nag man naa romb naa yooyu nag man man man man kilifa laa. <laughs> dem dem lay tàggoo. di leen nuyu di leen kontaanee ah, di remercier bu baax a baax a baax ah, ah, Dakaractu. Mhm. di leen remercier na la ndaanaan nga. na la gars yi woo ci téléfilm yu mag yi. <laughs> c'est vrai parce que. ma ma solaat xaftaan. ok no non il faut aussi ñu xam loolu na la gars woo ci téléfilm yu mag yi. <laughs> acteur bu mag <laughs> nit ñi xam nañ ko daaree ko ci xam na ko lamaraana xam na ko ñëpp xam nañ ko parce que mm. man parce que man bi ma lay bi ma lay bi ma lay seetaan di la fan boobu internet bariwul lamak koor gi ok donc tey donc tey jot na <laughs> dama koy wax tout le temps rek di ko wax quoi ñi yor structure yu mag yi mm. maison de production téléfilm yu mag yi ay dégg nañu gëstu xool ji tey ku mel ni Papa euh, Pen Mm. pen Modou Pen mm. papa Demba Fall mm-hmm. ay papa Modou Diagne mm-hmm. ah, xool ay ay <coughs> xamante ni yàgg nañu ay affaire ay mère Rama mm-hmm. dugal leen ci série yi ñu nekk yaayu ñii effectivement parce que aussi nag liggéey nañ si aar loo xamante ni xëy seen jamono seen jamono euh, xaalis bi bariwul woon noonu yenn maison yu mag yi dañ ko jël lool rek laay ñaan waa Mborodi di ko ñaan waa euh, ki even ah. Euh, waaw est-ce que lu gën a yomb kon dafa mel ni mooy gën a yomb série yi am paay bu ñu leen boole woon ci série yi coow yi am série yi am tey du ko. waaw xam nga xam nga xam nga man sax du du ma bëgg di critiquer. ci hmm. série yi parce que xam nga rek waaw moom bon c'est pas quoi xam nga hmm. mais mais dama bëgg wax rekk ne borom série yi muy Mborodi muy Events. muy yeneen yi nga xamante ni xam nga ñoom ñoo yor sérieux damañ koy ñaan rek ñu jël paa yi ak maire yi nekkoon ay daaray Kocc ay maire yi yàgg a joué théâtre te Sénégal xamoon leen te xëy na amuñu woon euh, euh, euh, maanaam moyen boobu temps amuñu xaalis boobu temps amuñu woon fay dañu am image mais duñu am xaalis dañ leen dugalaat ci biir film yi bees léegi ñuy nekk yaayu acteurs yi papa acteurs yi pour mm. aussi ra loolu rek doy na rendre leen hommage. Mm-hmm. loolu rek hommage la si ñoom. Mm-hmm. xam nga parce que ñoom xëy na euh, euh, euh, bëgg nañ ko mais ñu daw ci kanamu seen moroomu doom naa leen jël leen ma ci lii. Mm-hmm. waaye ñoom ñiy seetaan tey boo duggee tey YouTube tey tàppe tey théâtre daaray ko ci yaa dëgg am na fi paa yu fi des. ak maire yu fi des yoo xam ne wax wax wax dëgg yàlla nañ leen jël. Euh, producteurs yi boole leen ci film yi xew léegi ñuy nekk papay diw bàjjani diw ak yaayu diw loolu bokk na si leen dimbali parce que am nañu image bu ñu dem fenn di tàll ay ay loxo. muy message bu message bu message bu am solo loolu mm. maison production yi surtout ak yeneen yi parce que xaw ma maison yëpp quoi. Mm, mm. Euh, kii event sa xawma lan xam ma ñuy gérer mm. ay infidèle et tout ça. Mm. nañu jël maire maire ancien yi. Euh, ak paa ak mm. mais dugal leen ci série yii. xam c'est bien dal parce que bokk na vraiment li ñu dimbali ñi am lu ñu jël diko yobbu sen njabot mo ngi noonu l'artiste Demba Guissé gis ngeen message bu solennel bi mu mudé tëjee jëmele ko ci le monde de la culture muy le 7 septième art di théâtre sénégalais wax na dëgg mbir ma ngi noonu tey ñu seet si woon ko. Eh, fekk fi magam ju baax ci Pendo moom tamit di ñaan yàlla yokk ko wér ndax taxawaayu Pendo ci ginnaaw dem eh, lu am solo la ci moom eh, di leen wax rek mbokk yi lii la ñu leen indiloon tey seen émission H24 sur Dakaractu ñu ngi ñëwaat te maa ngi ñëwaat ci beneen numéro waaye bii di ñëw fu muy fële dana leen jaaxal kon mbokk yi di leen jox dig daje ba yeneen jamono yeewu jàkkaarloog sa kanam mu def effet soxlawul sax may naa ni